début 2024 euh, euh, monsieur Daj naka nga gisee tey ci euh, lu ni mel. Date waaw donc dañ leen di nuyuwaat encore une fois. Mhm. voilà donc le premier baril de pétrole était attendu en mille vingt malheureusement ñëwul ñu attendre ko en deux mille vingt deux ñëwul. Mhm. deux mille vingt aussi ñëwul. ba léegi ñu ngi ne deux mille vingt quatre lay ñëw mais je crois que pour un projet pour un projet loo xam ne dañ koy projeter bon ces retards là dafay dafay nekk loo xam ne mun nañ ko comprendre mun nañ ko comprendre d' autant plus que euh, boo xoolee crise yi fi jaar euh, muy Covid bi muy aussi la guerre de l'Ukraine mm-hmm. donc ça ça peut se comprendre parce que le pétrole dafa laaj benn chaine benn chaîne boo xam ne dafa laaj technicité euh, laaj aussi loo xam ne dañ koy jëlee étranger loo xam ne dépendrewul ci ñun donc loolu moo tax ce retard là peut se comprendre peut se comprendre mais su ma ñëwee parce que parce que parce que quand même y a des y a yoo xam ne def nañ ko yoo xam ne nii nit ñi mun nañ ko xaar ci pétrole bi ici au Sénégal mhm. mun naa ci ñëw euh, estimation bu njëkk Euh, mooy que ne euh, au terme n'est-ce pas de, l'exploitation mm-hmm. euh, le Sénégal attend à avoir mille trente millions de barils de pétrole mille trente millions de barils de pétrole mmh. il attend aussi à avoir neuf cent dix cent dix mille milliards neuf cent dix milliards de mètres non 910 milliards. Okay. 910 milliards de mètres cubes de gaz. donc loolu boo ko xayma en terme de recette euh, dafay nekk luy avoisiner 693 milliards de francs CFA par an autrement waaw ci non ci gaz bi ak ci pétrole bi ci gaz bi ak ci pétrole bi réunis c' est 693 milliards de francs CFA par an environ donc euh, ce qui fait à peu près le dixième du budget. ou bien les 10% du budget de, de notre pays, bon, que la FMI a, a approximé aux environs de 6% de notre PIB. De 6% de notre PIB. Euh, donc c'est vrai, c'est vrai que le pétrole, ngi koy xaar euh, bu ñëwé dina baax mais vous voyez estimation yi li mu joxe donc 10% du budget donc nekkul loo xam ne nii dana dana nekk loo xam ne bu ñëwee rek Sénégal dafay naat complètement comme lu comme ni ko nit ñi foogee ça ne va pas passer comme ça donc euh, on doit continuer à exploiter encore a exploiter pour que pétrole bi mën a nekk loo xam ne luy njëriñ nit ñi la te mu nekk lu loo xam ne ñëpp dinañ ci jot mais pour l'instant il y encore des efforts à faire. il y a des efforts à ah, faire mais tey on a l'impression que ñu ci bëri dañoo foog ne Sénégal sera comme Paris. Euh, une fois que ñu exploité euh, pétrole bi parce que ñu bëri soo leen di dégg euh, impression boobu noonu ngay am mais tey jii concrètement euh, ban conséquence économique et sociale exploitation boobu am ci réew mi. waaw xam nga xam nga tey jii dafa am benn benn loi boo xam ne dañ ko voté en deux mille vingt deux le dix neuf avril deux mille vingt deux cette loi-là dafa joxe les orientations comment est-ce qu'il faut faire comment comment est-ce qu'il faut utiliser recettes. ces recettes et l'encadrement de ces recettes bu ci njëkk mooy que ne kenn du hypothéquer les ressources naturelles du pétrole kenn du ko hypothéquer maanaam su ma joxee benn exemple mooy que ne munoo ne par exemple je veux construire la route Touba Tamba autoroute ba pare hypothéquer benn jugement loolu loi bi da ko aaye. deuxième chose aussi mooy que ne le l' la là les recettes vont directement dans le budget du Sénégal ça va directement dans le budget du Sénégal te li ñu ci wax aussi la loi a dit clairement bu ñu ko appliqué mooy que ne les quatre-vingt-dix pour cent c' est pour les investissements prioritaires investissement prioritaire moom mooy maanaam lu mel ni njàng mi lu mel ni wërgu yaram euh, lu mel ni mbay mi. lu mel ni sàmm bi xaalis boobu les quatre vingt pour cent kenn du ko jël pour ay salaire loolu la ñuy wax pour ay salaire kenn du ko jël pour ay salaire kenn du ko jël pour ay pour ay indemnité kenn du ko jël pour ay allocution familiale c'est réservé pour les investissements prioritaires les quatre-vingt-dix pour cent les dix pour cent euh, c'est les fonds intergénérationnels les dix pour cent parce que quatre-vingt-dix pour cent donc dix pour cent moo ci des les les dix pour cent c'est les fonds intergénérationnels c'est c'est des fonds mun nañu wax épargner un peu pour les générations futures hmm. parce que tamit génération future yi dañ ci am dañ ci am wàll parce que même boo gisee pàcc bu njëkk bi pour les investissements euh, pour les investissements prioritaires euh, loolu sa vise les générations futures aussi parce que tey bu ñu investir ci hôpital bi investir ci njàng mi investir ci activité non seulement ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk dinañ ci bénéficier wu. Mm-hmm. mais aussi les générations futures dinañ ci bénéficier wu. mais est-ce leeral nañ investissement prioritaire parce que je pense que euh, question de priorité ça pose problème mm-hmm. au Sénégal parce que ñii par exemple terre bi bañ ko tegee ñii jàpp nañ priorité la ñii jàpp ni que c'était pas le cas donc est-ce que leeral nañ ko ba mu leer bu ko defee benn pëcc xóodu ci am. non je crois que ça mm-hmm. la loi a été nee na les investissements prioritaires c' est l' agriculture c' est l' éducation c' est la santé c' est l' élevage et cetera mm-hmm. voilà et te tey ku ne xam na ne foofu suñ fa investir vraiment c' est une priorité c' est une priorité que nit ñi dem bay pour am vraiment lu ñuy wax euh, le consommer local et aussi et aussi nu ñu koy waxee aussi voilà l'autosuffisance alimentaire mm-hmm. loolu c' est important éducation bi aussi gis nga ni mu mel mm-hmm. santé bi gis nga ni mu mel man fele ma nekk amuñu hôpital xëy na ma ñëwaat. fan la moom mooy la commune de Jaxaay. Jaxaay parcelle. ñu ngi ñu dig benn hôpital hôpital bi eh, c'est en état de construction depuis des années. Hmm. mais ba léegi construire ñu ko. d'accord donc là coût d'investissement bi ñaata la foofu. pour cet hôpital là. coût d'investissement bon je ne sais pas exactement en tout cas on avait dit qu'on allait faire ça. un hôpital de niveau de niveau deux. deux oui. après ñëwaat ne vraiment un un centre de santé et cetera. en tout cas daal les population sont en train d'attendre. c'est une population de quarante mille habitants environ la commune. Mhm. bon sur cinq cent quatorze hectares mais benn poste de santé moo fa nekk. benn poste de santé public fonctionnel moo fa nekk donc loolu investissement prioritaire yooyu bu ñëwee mhm. vraiment dina soulager des populations dina soulager ay populations mhm. certes ñëpp mënuñ ko yëg mais en tout cas ça va soulager des des populations mhm. c'est important alors euh, contrat pétrolier yi naka nga ko gisee foofu sax euh, parce que nee naa bon euh, pour la loi là la la loi qui encadre les recettes Mhm. j'ai dit les 90 pour cent et les 10 pour cent mhm. maintenant au cas où il y a un excédent au cas où il y un excédent mhm. ci lu ñu foogoon mu ëpp ko là euh, ces fonds là son euh, sont appelés des fonds stabilisateurs ce sont des fonds qui seront réservés et au cas où il y a des fluctuations sur le pétrole parce que pétrole ku ne xam na ces mouvements c'est volatile day dem di ñëw donc ça permet de stabiliser ce qu'on avait prévu et de compenser ça bon pour les contrats pétroliers parce que dans le monde fii mhm. euh, il euh, y a en général trois contrats pétroliers moo gën a siiw mhm. y a les contrats de concession il y a les contrats de service et les contrats euh, de recherche euh, de partage et de production mhm. voilà mais le Sénégal a opté euh, le contrat de recherche de partage de production de recherche de partage et de production c'est-à-dire que loolu la Sénégal opté boo demee lu mel ni yenn pays le contrat le contrat de concession mooy maanaam nga gis benn jugement de pétrole benn bloc de pétrole. exploité ko pendant un certain nombre de temps. waaw après nga delloo ko nguur non concession. concession moom mooy moom mooy. Mhm. moom mooy maanaam euh, da ngay gis benn jugement. Mhm. Euh, nga waxaaleeg euh, un kii pétrolier. Mhm. nu ñu koy waxatee en tout cas voilà une société pétrolière. y a a un autre mot même moom da ne ko da ngay ne ko fay ma nangam mais yow man nga jël nga exploité. Hmm. loo ci am yaa ko moom. loolu dafay am mooy le contrat de concession. dafay am durée waaw waaw waaw dafay am durée. en général du non en général non en général les contrats la c'est c'est vingt cinq ans trente ans vingt ans ça ne dépasse pas trente ans quoi. Ah, okay. loolu mooy le contrat de concession euh, le de service. moom mooy état bi day am moyen. Hmm. fay pour ñu extraire ko pétrole maintenant le contrat de de recherche de partage et de production moom la suñu suñu état yi def parce que exploiter le pétrole ça demande beaucoup de moyens ça demande des milliards. Hmm. donc les sociétés pétrolières dañuy ñëw def ci seen moyen exploiter ko après ngeen séddoo xool ngeen ko séddooyee donc euh, le partage la le Sénégal peut avoir jusqu'à plus de. 60 pour cent ci exploitation bi voilà donc je crois que loolu moo nekk à notre portée en tant que pays pays vraiment qui n'est pas développé loolu moo mën a nekk suñu suñu suñu kii parce que dinañ ci gis suñu bopp bu ah. fekkente ni ñu du ñun ñoo ko ñoo ko nar a exploité en fait dañuy am une société d'exploitation je pense que loolu nga wax ci say ci say kàddu ni ñu ci war a gisee suñu bopp carrément est-ce que ah. dina demee nu ni mel est-ce que gënu woon ñu waajal suñu bopp laataa ñoo exploité xool yan expertise la ñuy am bu ko defee ñu exploité suñu bopp moomal ko suñu bopp waaw loolu moom bon loolu moom c'est un débat c'est un débat par que xam nga exploiter benn gisement de pétrole rek te le Sénégal euh, sur les si mes souvenirs son bon sur les cent quatre-vingt et quelques jugements qui ont été exploités euh, il y a quatre-vingt-onze pour cent d'échecs tu as vu donc bu ñu pertee seen xaalis oui te su te perte ñoom seen xaalis c'est tant pis pour eux alors que pour un jugement au minimum c'est cinquante milliards de francs fa hmm. donc loolu le Sénégal ne pouvait pas s'engager dans ça donc c'était un choix hein Euh, bi ak problème amee ak euh, Thierno Alassane Sall. Mm-hmm. ci recherche yi euh, bi ñu joxee diggante Kayar ak ak Saint-Louis. Mm-hmm. Euh, contrat de recherche boobu à Total. bi ñu bi ñu seetee après gisuñu dara. Total avait perdu de l'argent. voilà à 54 milliards. c'est ça tout à fait. tout à mm-hmm. fait donc loolu c'est un choix. en tout cas les pays yoo xam ne les pays bon yoo xam ne amuñu doole trop. boobu la ñuy adopté. boo demee lu mel ni Arabie Saoudite qui est le premier producteur de pétrole au monde ñoom vraiment euh, oui non no ñoo rek ñoom bon defuñu partage ñoom ñoom il font des kii de service de service ou bien waaw de, de, de service parce que ñoom ils ont vraiment l'expertise ah, parce, parce que tey voilà am nañu xaalis parce que pour te dire que ne ñun tout ce que nous exploitons en un an l'Arabie Saoudite l'exploite en un jour waaye mm. donc la différence donc encore il y a encore beaucoup de choses à faire ah. fi ñu ci toll la voilà voilà fi ñu ci toll la ñoom vraiment dañ ci yàgg am ci expertise am ci xam-xam. Mhm. donc euh, loolu la je crois que je crois que. ñaata puits moo am ah. ñaata puits pétrolier ñoo am pour xam ne dañ ko gis. non je que c' au nombre de seize ans. Hmm. au nombre de seize waaw. au bariwul. et je crois que ce qu'on avait prévu d' pour deux mille vingt trois bi. c'était c'était le qui de, de, de Sangomar, le jugement de Sangomar. Voilà. Et ça devait faire environ une cinquantaine de milliards. Donc, euh, si se reporter aussi, vous n'avez qu'un reporter aussi, c'est pas très méchant. Bon, bien que si la loi est appliquée, les 90% vont entrer, euh, seront, n'est-ce pas, des investissements prioritaires. Bon, certes, nous avons mais defe naa ne ce n'est pas méchant que ça soit reporté de quelques mois ou bien d'un an. est-ce que ay gains sur les euh, bon moi je l'appelle ay gains dérivés. des gains dérivés. maanaam. maanaam euh, c'est-à-dire que pétrole bi dañu ci gagner xaalis. mais il y a des rési du pétrole. waaw maanaam euh, déchets pétrole yi mun nañ ko exploiter def ci leneen. loolu est-ce que Sénégal dina ci gagner de l'argent. waaw tout à fait. parce que pour nañ si def ay usines yu caoutchouc waaw par exemple ay ay ay ay terrain synthétique ay tapis ay yu demee noonu mooy déchets yooyu ñi nga xam ne moom mooy génn ci pétrole bi bu ñu ko filtré ba pare déchets yooyu mën nañ ko utiliser euh, ci ay société au Sénégal pour gañ faire gagner encore de l'argent tout à fait à l'état du Sénégal ak même après sax même favoriser euh, ay ay ay ay kii ay gain d'emploi parce que oh. y aura des sociétés qui vont être créées qui seraient spécialisées dans ces domaines là Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur que, que, le, pétrole doit engendrer au Sénégal. Et c'est important. loolu bokkul ak ak somme bi nga wax ne moom la ñuy gagné loolu c'est à part. waaw waaw non loolu c'est à part waaw. non loolu c'est à part donc vraiment on peut espérer beaucoup de choses sur le pétrole. si c'est sérieux et waaw si bien géré ah. ñu teg ko ci ay loxo yu wóor. bon ça peut nous servir. xam nga ni loi bi encadré affaire yi taxaw na taxaw ba nga xam ne kenn du ko mën a kenn du ko mën a kenn du si mën a euh, def ay jiix jaaxa wala ay ay ay corruption wala yu demee noonu xalaat nga ni am nañ ci yaakaar ak loi boobu wala am na toujours lu des. no c'est-à-dire que non c'est-à-dire que non c'est-à-dire que que bon la loi elle est mais il doit y avoir des corps de contrôle man loolu laa gëm. Mhm. mooy que ne il doit nit ñi dañu war a dooleel les corps de contrôle lu mel ni OFNAC lu mel ni le Cour des comptes. la cour des comptes ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi fi di def ay liggéey di produit seen rapport mais malheureusement du am suite aussi loolu la ñuy gis donc loolu moo tax loi bi baax na lool mais il faut son application mu am benn rigueur. ak le nouveau pôle financier xalaat nga ne mën a dox. waaw pour avec le tout dépend rek tout dépend. si di de non dirigeants. moo tax c'est important tout dépendra de nos dirigeants. parce que lii ay texte la rek ay bind rek. mais l'appliquer c'est autre chose aussi. parce que si mm. c'est pour ah. enrichir quelques personnes. Ah. comme ça se passe au Congo. Ah. Euh, ou au Gabon. Euh, c'est pas la peine Gabon waroon waroon na doon même pas 3 millions d'habitants boo ci boole immigré waroon na nekk pays bu développé Gabon bi nga xam ne mi ngi exploité pétrole am depuis pratiquement plus de 30 ans alors que Qatar ñoom bërki démb la ñu commencé te gis nga Qatar fi mu toll waaw alors que Gabon euh, c'est un pays qui est un pays qui comme un pays pauvre dëkk boo xam ne la c'est un pays pauvre tout à fait Qatar na ko un pays de mètres carrés Gabon xoolal nu mu toll yëpp li mu doon exploité mais Gabon defu ko pourquoi pourquoi lan moo tax bon xaw ma ndax xam nga ci dara man xaw ma ci dara Gabon di di di pauvre noonu alors que ce sont des pays qui sont donc qui waaw qui devraient être riches mm-hmm. oui oui mais li ma li ma la wax rek mais c'est mal exploité c'est mal les ressources. C'est mal exploité ou c'est mal géré c'est différent. non non c'est mal géré plutôt. waaw c'est mal même si c'est bien exploité en tout cas c'est mal mais moom mooy li xew ci suñu ci suñu dëkk yi rek. waaw parce que problème de bonne gouvernance la ñu am en fait donc euh, tey jii boo xoolee loolu est que di nga am njort bu rafet par rapport ak euh, euh, exploitation wala gestion wu pétrole bi. waaw bon man de am naa ci njort bu rafet. ci li ma liir ci li ma gis am naa ci njort bu rafet mais toujours rek. ça revient au gouvernement parce que le pouvoir politique est le plus fort que tout ça te malheureusement dans nos pays la ce qu'on voit c'est que c'est que vraiment c'est quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs entre ses mais loolu moom mooy suñu cat aussi way mm-hmm. il y a aucun moyen vraiment de limiter des pouvoirs à quelqu'un mais loolu nag li muy jur moom mooy lii parce que dañuy dañ lay produire un rapport wala ne lii moo am mais fu muy mujj parfois dans les tiroirs Mais comment ça Donc loolu c'est un problème. que dans les... Parce que ouais. Pardon. allez fait? Question là, ça que dans les dans les pays euh, euh, arabes. Ouais. Euh, yaa ngi koy cité léegi ñoom Arabie Saoudite ay Qatar ay ay ay ay yeneen dëkk yi nekk dans le dans le dans le Golfe euh, ñu ñoom qui sont censés être des pays qui ne sont pas forcément euh, en phase avec les nos nos démocraties contemporaines Ah. comment ça se fait que ñoom ñu développé seen pétrole ba dëkk yi di si gis seen bopp boo demee des pays comme le Qatar ak yooyu da ngay gis ni dëkk yooyu mi ngi dox mhm. alors que ñun on est censé avoir un niveau de démocratie beaucoup plus poussé

bi est-ce que réellement ñun on est vraiment démocrate est-ce que réellement roi sax gënul baax non loolu c'est des questions hein est-ce suñu démocratie bi est-ce que réellement c'est une démocratie parce que quand tu es chef quelque part vraiment tu détiens entre tous les pouvoirs pouvoir de pouvoir de signature terrible yoo xam ne lu la ngay def pratiquement donc loolu moo tax ñun ñu ngi wax démocratie démocratie mais nañu xoolaat aussi réfléchir est est-ce que <laughs> war a basé wu ou bien sur la façon de gouverner Absolument. sur la façon d'appliquer les lois et cetera et cetera je crois que je crois que le Sénégal se peut, même être développé mhm. sans le pétrole man loolu laa gëm loolu laa gëm bu recette bu recette yi demee fi fi mu war a dem euh, nit ñi am li ñu war a am man je crois que on n'a pas besoin même du pétrole rek suñu géej gi nu mu naatee licence licence licence yi ñuy distribuer noonu comme licence de pêche yi mhm. ñu joxe euh, nga dëgg loolu rek mënoon a développer réew euh, bi bu ñu ko développé comme il faut agriculture bi waaw njàng mi suuf yeeg ak xaalis bi may dégg milliards yi may dégg au lieu nit ñi seddoo ko benn nit ko c'est ça qui loolu c'est c'est terrible alors que alors que yow nga nekk fonctionnaire comme man mhm. bon tu n'es pas un homme d'affaires mhm. ñu gis la sa compte am ay milliards mais foo ko mën a jëlee. absolument foo ko mën a jëlee dañu waxante dëgg. Mhm. Hmm? un fonctionnaire. qui doit percevoir par mois comme sama classe yi. Mhm. mais fan laa war a mën a jëlee ay milliards. te gisuñu ma ma def affaire je ne suis pas un homme d'affaires mais les milliards c'est pour les hommes d'affaires et et on doit les compter dans un pays. absolument voilà mais malheureusement c'est pas le cas. Mhm. donc ñun daal man jàpp naa ne. le problème de bonne gouvernance à, euh, à gérer et à développer. Mm-hmm. Donc euh, comment faire xëy pour euh, à la malédiction des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Mmh. Bon loolu aussi bon c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit mooy que ne véritablement man contrat yi ma lire vraiment ay contrat yu jaar yoon la ay contrat yu la il suffit juste de l'appliquer il suffit qu'on applique pour que vraiment qu'on n'ait pas la malédiction du pétrole. Euh, parce que tey boo bu nekkee ne tu un pays boo xam ne am nga pétrole tu es convoité c'est vrai tu convoité mais on doit rester vraiment patriote mm-hmm. et sénégalais pour vrai véritablement euh, li nga xam ne moom moo jógee ci suñ ressources naturelles yi man mm-hmm. a dellu ci askan bi loolu c'est important pour échapper à la malédiction du du pétrole mais nag bu nekkee ne vraiment je suis la je suis un sénégalais mais ailleurs may dem di jaay ay samay mbokk hmm. wala di def loo xam ne naka sudul noonu aussi hmm. on peut avoir la malédiction du pétrole hmm. waaw mais vraiment bu nekkee ne am nañ la la claire conscience que lii comme le dit l'article vingt-cinq de la constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple voilà et ils doivent contribuer euh, à leur bien-être Mm-hmm. donc loolu bu buñ ko appliquer buñ ko defee je crois que on sera vraiment quitte avec notre conscience et on n'aura pas la malédiction du du pétrole. du pétrole c'est voilà. important alors euh, euh, euh, waxtu wee xooj na ñu xay na bu amoon kàddu booy booy sànni par rapport ak recette recette yi ñu ci yi ñu ci war a am. pour une bonne gestion. Euh, conseil booy joxe wala naka nga bëggee ñu doxalee ko noonu pour yëf yi gën a ñoŋ lan lay doon pour terminer. parce que nee naa ne bon les recettes là euh, liñ ni ñu ni ñu ko xayma c'est à peu près les dix pour cent mm. euh, du budget ou bien les six pour cent du PIB environ on a dit que c'est six cent quatre-vingt-treize milliards par an environ xaalis la waaw en moyenne quoi en mm. moyenne nag lañ wax mm. c'est-à-dire quand on la somme divisée par vingt cinq parce que parce que l'exploitation là ça peut durer vingt ans vingt cinq ans ou trente ans donc en moyenne c'est six cent quatre-vingt-treize milliards mais loolu si on applique ce qu'on a mm-hmm. ci loi bi la loi du 19 avril 2022 ne les 90 pour cent doivent revenir aux investissements prioritaire yóbbu ko ci mbay mi yóbbu ko ci njàng mi mm-hmm. yóbbu ko ci faju mi yóbbu ko ci napp mi je crois que loolu ce serait une très bonne chose ce serait une très bonne chose. parce que daal loi bi lijjanti na lépp. voilà loi bi daal bu ñu ko appliquer. parce que mhm. le Sénégalais est fort en loi. mais mhm. malheureusement c' est l' application. moom meilleur dañ dañ ko mën. Mhm. mais nag quand il faut l' appliquer et l' argent entre directement dans le budget du Sénégal. est réparti comme ça. donc loolu vraiment bu ñu ko defee je crois que ku ci nekk na ci gis ba sa euh, bopp bien que comme je l'ai dit c'est pas encore voilà de ce qu'on a aujourd'hui c'est pas encore les grosses recettes mais en tout cas mun na faj ay soxla mun na def de sorte que véritablement même si tout le monde n'est pas satisfait aussi que véritablement mu wàññi les souffrances des des mais cet argent-là encore une fois la loi a dit que c'est pas destiné à augmenter des salaires mm-hmm. ni à donner des indemnités ni à donner des allocations familiales ak yooyu. Hmm. donc vraiment les. 90 waaw nekk au niveau personnel war nga sentir yokkute. waaw war nga sentir que vraiment. yëf yi bokkut ak comme ni mu demee voilà parce que tey man. Euh, bu nekkoon loolu am na ñu construire ma jaxaay bi nga xam ne maa ngi foofu ñu construire ma terminal ma euh, le kii la dañ koy waxee le centre de santé. Hmm. defar canalisation inondation yi parce que inondation yi sonal nañu trop foofu aussi. Hmm, c' est l' occasion même de lancer un appel à l' état mu ngi def effort foofu mm. mais vraiment war na ci gën def effort mm. parce que vraiment y des unités là-bas yoo xam ne ils vivent l'hivernage presque douze mois sur douze parce que la nappe dafa yéeg et tout le temps ils sont inondés mm-hmm. donc taw bi muy ñëw ce matin sax noon noor comme nawet noor comme nawet je pense à l'axe 11A ñu ngi may dégg xëy na 11B Euh, unité vingt 27 mm-hmm. unité 10 mm-hmm. euh, cité Teranga. Mm-hmm. yooyu yëpp pratiquement. seen seen biir kër yi dafay tooy noor ak nawet. c'est difficile. donc euh, bi may ñëw ci ci taw bi j'ai j'ai beaucoup pensé à eux beaucoup pensé à eux parce que koo xam ne yaa ngi dund inondation te nawet bi ñëwagul. waxantuma la nag bu nawet bi mhm. waaw jaxaay bi jaxaay parcelle la commune de jaxaay parcelle dans le mhm. département de Kër Massar ah, mhm. dans le département de Kër Massar Kër Massar moom loolu yàgg nañ voilà hmm? Kër Massar jafe-jafe euh, yooyu yàgg nañ donc loolu aussi même aussi sur le foncier aussi véritablement y a des problèmes aussi. Mmh. y a une crise foncière à Jaxaay. boo xam ne vraiment état aussi war na ci wax. Mm-hmm. parce que y a le TF 1451R yéen a ngi koy dégg xam naa sax. na ko fi yoo xam ne vraiment HLM jox na koy habitants. Mm-hmm. mais yeneen population ñëw ne aussi ñoom ñoo ko moom. Mhm. donc loolu aussi état rek moo ko mën a régler. mi ngi noonu c'est important alors bonne gouvernance rek en gros. bu ñu nekk di nga gis sa bopp. Euh, même bu ñu yokkul sa salaire par exemple bu ñu yombalee dund gi. nga dem marché. Euh, di nga gis ni que yow sa sa sa gafaka la ca nekkoon di ko mën a yaxanal te li nga bëgg di ko am donc dafa am ay paramètres yoo xamante ni mën nga bañ a yokk salaire directement mais di nga yombal askan bi seen dund tout à fait comme tey comme tey bu ñu bu ñu construiroon un hôpital a à Jaxaay mhm. au may jël taxi di dem ba principal di mhm. fay dix mille aller dix mille retour muy vingt mille mais ma déplacé wu dem avec ces vingt mille là je peux je peux me soigner bu nekkee j'ai une bonne école mhm. un lycée lycée bu baax boo xam ne ne ne les effectifs sont mu nga foofu sama wet mais au lieu fay aussi école privée Ah, di jël ay samay doom di transporter di yóbbu. Mhm. dama koy sentir. bu gagné en en en argent et du temps. yoon yi aussi su baaxee. Mhm. mais sama oto du paan. Ah, mhm. mais yooyu yëpp tu le sens. indirectement. donc c'est pourquoi dañu ne dañu ne loolu on le fait pour cette génération là mais même pour les générations futures. futures c'est important parce que ça va aider tout le monde quoi. mi ngi noonu euh, waxtu wi xoj nañu mais euh, kàddu yi amoon na solo et hmm. ku ci nekk tey ji gën nga am une idée euh, ci pétrole bi nga xamante ne nag war nañ ko jot au plus tard 2024 monsieur Daat ñu lay ziar ñu lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggoog téléspectateurs yi. waaw merci donc ñu ngi leen di remercier encore une fois hmm. Walfadjri di remercier. Euh, njiitu njiitu kër gi mm-hmm. Cheikh Niass di la remercier Salma di mm-hmm. remercier tous ceux qui sont là mm-hmm. dans le sur le plateau di remercier aussi Mamoun bi nga xam ne moom moom moo diligenté invitation bi ba ma ñëw fii Mamoun Diakha bi gasama voilà donc euh, di nuyu le président professeur Amidou Dat mu nekk le président du partie Crédit di nuyu aussi toute la population de Jaxaay di nuyu le maire Abdou Aziz Diané mhm. parce que je suis son adjoint d'accord je suis son adjoint aussi en mhm. tant que voilà professeur de mathématiques mais euh, je suis son adjoint je suis je premier adjoint ma koy nuyu mhm. di ziar aussi l'ensemble du conseil municipal de la commune de Jaxaay Parcelles di ci seppi Ousmane Mbaye di ko nuyu waaw Ousmane Mbaye mhm. parce que parce que parce que sànq maa ngi wax crise foncière bi te mhm. comme moom moo yore la commission domaniale aussi mhm. baax na ma nuyu ko ak ki nga xam ne moom moom moo yor aussi la commission la commission urbanisme bi Ndoukhate ah, mais aussi dama bëgg a féliciter encore sama nga xam ne man maa leen yoroon yoroon en terminal s ñu am cent pour cent hmm. ils étaient huit woy lycée moderne de Rufisque parce que parce que man maa yore terminal S1 mm. mm. une mention très bien et cinq mentions bien et une mention passable et une mention assez bien ah de euh, war koy di ko faral di ko euh, wax ah, di benn lycée moderne au passage may may féliciter en même temps les professeurs qui étaient dans la même classe le mmh. madame Ndiaye mhm. waxtu wee ñu xojñoo ah. madame mais mais mais macha allah liggéey bi am na solo kàddu yi am na solo et puis li nga daanelee aussi ñu ciy féliciter bépp euh, ku nga xamante ne jamono ji am nga baccalauréat BFM ñoom ñëpp ah. ñi amul aussi dañu defaruwaat rek te dem uti ji waat ah. yàlla jeexul di la jaajëfal bu baax monsieur Dat mais di jaajëfal aussi Mamou Diaby Gassama ci coordination bi donc ñu jëlee daal di dikkaat parce que féminin euh, euh, la chance des Lions à à Kigali euh, Djibril nga war.